mbokk yi dama bëgg ñu ñu méditer ensemble mooy ci ci xissa bi ci jamono Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda dafa am waajoo xam ne yàlla daf ko ndeysaan da daan naan sàngara lu bari benn bés am ñu jóge Cham waa ji ndeysaan mu ngi Cham Omar radiyallahu anhu arda daa di laajte ni waa naka naka diw la naka la diw def ñu ne ko ah waa ji de mu ngi foofu rek ak ay mbiram moom bi maanaam moom day naan kese Omar ibn Khattab radiyallahu anhu daal xam nañ ko nu mu dëgëree ni nga xamante ni caaxaan bokkul ci ay programme am mu ne waa ana diw ñu ne diw de mu nga fa moom ak mbiram ah, ba léegi mu ngi Omar radiyallahu anhu daal di woo benn waay ne ko bindal waa ji bind mu ne ko waa jooju laay yónnee lettre lettre bi lan daf ko ciy saaga daf koy convoqué ngir mbugal ko wala daf koy ñaanal yàlla na ko yàlla mbugal déglu lu Omar wax ne ko waa ji Omar ne waa ji bindal uktub waa ji bind mu ne ko neel salaamullahi alayk min Omar ibn Khattab radiallahu anhu ardah ila fulaan ibn fulaan mu ne lettre bi de maa ngi sant yàlla maa ngi lay nuyu waaye lettre bi mu ngi jóge ci Omar ñëw ci yow ah, dégg naa ni yaa ngi ci sa yaa ngi naan ba léegi ci bàkkaar bu doy waaye maa ngi lay fàttali borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ki nga xamante ni mu jàngal ko débi saar moom mooy suuratu xaafir ndeysaan mu ne ko ahmadu ilayka allahu alladi laa ilaha illa hu xaafiri dan wa qaabili tawb shadidi l iqaabi li mu ne ko maa ngi sant borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy jéggalaate xaafiri dan xaabili taw moom mooy nangu ku tuub shadidil iqaab waaye aka moo tar mbugal di taw li moom mooy borom ngëneel bu dul jeex laa ilaha illa hu moom amul benn yàlla bu ñu jaam ci dëkk dul moom ilayhi masir ci moom la ñuy dellu borom bi subhaanahu wa taala ndeysaan mu bind lettre daal di koy jox ne yóbbul waa ji ba mu yóbbu lettre bi Omar ne ñi toogoon mu ne udu llaha li axiikum ñaanan ñaan leen borom bi subhanahu wa taala ngir yàlla gindi seen boobu waaye bu leen ko ñaanal mbugal bu leen ko ñaanal lor ñaan leen yàlla gindi ko waa ji ba mu jotee lettre bi ndeysaan kontaan kontaan boo xam ne di répété nan yàlla mooy jéggalaate yàlla mooy nangu tuub yàlla de moo tar mbugal ndeysaan nee na xadarani de sori loo na ma mbugalam waaye nag dig na ma ak yërmande ndeysaan Momar ne gars yi ñaanal leen seen mbokk boobu nekk ci bàkkaar te seytaan mën ko waaye yàlla gindi ko yàlla jéggal ko yàlla dimbali ko mu tuub kon luñ ciy jàng rek mooy mbokk yi ñi nga xam ne dañoo sori yoonu aljanna moo xam dañuy naan moo xam dañoo nekk ci ay caaxaan buñ leen ñaanal lor buñ leen ñaanal mbugal nañ ñaan yàlla yàlla gindi leen waaye ku tuub rek yàlla jéggal la dellul ca suratu zumar yàlla nee na yow mi nekk ci bàkkaar yu dul jeex bul désespéré mu yàlla nee na tuubal dellu ci man man yàlla ma jéggal la baal la yàlla moom la ñu wax ne qul ya ibadi alladina asrafu la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jamia innahu alghafur rahim yàlla na yàlla yërëm ñu jéggal ñu kon na dem ak nit ñi cig ndaag cig dal waaye cig respect cig honneur waxtaan ak ñoom ñaanal leen ñi nga xam ne dañoo sori yoonu aljana nekk ci yoonu seytaane yal na yàlla gindi leen yal na yàlla delloo si leen allahuma amin ya rabbal alamin ma koy mujj ci waxu Utaymin rahmatullah nee na boo gisee sa mbokk mu réer nee bul mel ni avocat bi nga xam ne day jugé wala boog juge bi nga xam ne day jugé ki nga xam mooy criminel waaye melal ni médecin boo xam ne daa tiim ku feebar waaye dina xante ak moom ngir dimbali ko yàlla na yàlla yërëm ñu dimbali ñu dugal ñu aljanna amin yaa rabbi